waa ay sa waa PDS ñoom taxawee na le di xaar. nga d'accord mooy euh, di la nuyuwaat rek di euh, massawu seen euh, directrice bi muy Maymuna ci li ko jot daal di ko ñaanal yàlla may ko wér mu dellu si waat ci liggéeyam ndax réew mi dañ ko soxla askan wi dañ ko soxla bu ma jàngatee li nga xamante ni moom laa fi fekk muy débat wu loi bi man njort naa ne man dama contre loi bi. parce que man bu ma doon député du ma wate loi bi parce que euh, ñun ñoo fi doon toog di bañ ni politique ñun ñoo fi doon toog di wax ne ñi toj ak ñi taal ak ñi rey nit ñi war nañ leen mën a identifier jàpp leen. Mhm. kon tey bu ñu demee ba nar a bàyyi ñooñu man damay tiit ci réew bi parce que dañoo toll ci réew moo xamante ni euh, euh, sincèrement dañ war di sóoraale sénégalais lambda bi parce boo xoolee politiciens yi. Euh, euh, téeméer boo jël cinq pour cent lañ ci ñi nga xamante la ñuy woowee politicien kon bu ñuy sóor sénégalais lambda bi rek war nañ mën di teg lépp ci dëgg moo tax man jàpp naa ne loi bi euh, dëgg la ñi ngi koy défend ah, am na si côté yu mbaax baax mais man bu ma doon député tey damay contre loi bi duma ko voté. du ma du ma dem sax assemblée nationale député yi nekk foofu bokk ci mouvance présidentielle ñu bañ a voté loi bi. oui maa maa maa ngi xaar loolu si ñoom parce que. ci même camp bi lañu woon lépp mooy li ma la wax rek parce que munuñ toog fii ne gis nañ fi ay euh, terroristes gis nañ fi ay forces occultes gis nañ fi ay lu nekk tey ñu bëgg a taxaw ne dañuy setal ñoo ñëpp tey bu fekkente ne dañuy dañuy tiit rek ñun war nañ mën a tiit ci suñu bopp parce dañu doon wax ne am na ñu ñuy rax mais bu fekkente ne ñu ñu rax ñooñu tey libéré waat nañ leen ñu delluwaat ci population bi mais ana tey euh, euh, ki nga xamante ni cinq cinquante six station tot yi ñu taal mm-hmm. cinq cent cinquante euh, cinquante six stations yooyu boo ko jëloon tey station bu ne dix personnes cinq cent soixante personnes yoo xam ne ñàkk nañ seen liggéey nga dem ci waxuma la ci yeneen boutique yi nga xamante ni ci koñ yi dañ leen taal ñi nga xamante ni tey yàq nañ ci seeni oto ñi nga xamante ni ñi ci ñàkk seen bakkan sax moo ci gën a am solo voilà ñi ci ñàkk seen bakkan te ba léegi enquête bi mënul wax dara xam nga man jàppoon naa ne waroon nañ leeral ba xam ñi tooñ ak ñi def ñu doog a xool nan la ñuy defee ñi nga xam ne ni taxewuñ ci ñu jéem leen a jéggal ñi nga xam ne taqee nañ ci ñu ñu yoon def li li war si ñu